asalaamaaleykum ñu ngi leen di siyaar a ah, di am naqar boo xam ne si ñun ñëpp moo ñu dajale fii man la Cheikh Ndoye dëkk Medina Fall teenu maam jaara kii nag sama jarbaat la di jirim tekki ndax waajuram daf moom xamul baayam dafa teel a wàññeeku baayam dafa teel a wàññeeku moom xamul baayam baayam nag amoon na faneen mais yàlla moo dogalul loolu amoon ay ngànt ngànt maamam bu góor daggal ko këram ni ko jëlal lii ma may la loola mu am kum ko jaay ñu ne fii ëllëg dina am avenir ñu jël ci dat boo xam ne ban ko wutee kër gi dat booba yàgg na lool ban ko ko wutalee tamit ñu fàggul ko ko daal di gaaw defal ko fi ñaari néeg fondation ba def séenance ba pare benn waaye jóge fële nii am na ay kayit yu bees mille 2020 la ko am te am na doole te xale bii tey day ñàkk fii moom moo koy tabax ndax moom fii la bëgg soo ñu mën a préciser fi ñu nekk exactement fan la ci Médina Fall. fii mi ngi nekk euh, Médina Fall station. Mhm. boo de fekkee adresse bi da nga koy jël da koy jël ci daaray buubu ngay wax boo nee daaray buubu rek maanaam foo foofu wax subaan fii rek xam na ni fii mooy daaray buubu kon koñ bi yëpp foofu lañ ko mën a tuddee léegi kooku bi mu ñëwee ni ko bu fekkee ni fii yow da nga koo bëgg ma bëgg yaay ñàkk lenn rek nga mën a def négocier day am ma may la ma wutal la fële mbuurkaat su ma la wutalee mburkaat nga dem féete foofu nga man ma ne fii ndax man fii laa bëgg te fi mooy nekk te loolu fu mam am. ndax kooku dafa yor ay kayit. kayit yi mu yor moom nee na kayitu taf yëngal la ndax da ko wutal baay nee na baay bi mu ko wutal fi mu toll nii moo tax kii day ñàkk ndax kii amul doole amul xaalis. mel ne wax na la ni mu amee. ni mu ko waxee tamit amee kër gi mooy nee na benn xaritam la ne ko damaa bëgg fee. mu ne ko léegi garaawul këyit yaa ngi nii ma jox la bii jox ma njëgu essence njëgu essence la ko jox moom la amee kër gii kër gii du këru njëgu essence te loolu lépp ci xeetu jaay doole la te ñun dañuy daw jaay doole. ñun moom bi mu ñëwee ci kër gi fekk nañu def fi benn pen ñun gis nañu pen bi léegi moom bi mu dikkee lan moo tax mu jéem a jël kër gi te fekk na pen. ki ni la damaa am doole ba pare ragalatul dara dem na ba ni xale bi bis bu ma bëgg ba tàmbalee bu ma la fi fekkee dama lay rey moom dem na ba wax loolu xale bi su ma la fi fekkee dama lay rey ndax maa la man maa la ëpp doole te maa la ëpp maa la ëpp xaalis yow yoroo dara. mais léegi loolu menace la. waaw est-ce que dem ngeen jàll à l'étape waaw dañoo njëkkee lii parce que xool bu mitti bu ànn amee mu leer na ni yow naqar ngay dund fi mu toll nii sam xel dana jaxasoo ba instant bi ñu ne nanu profitoo ñun ñëw fii ci terrain bi ak sunu famille waxtaanee ko bu ko defee tungu du teew ngay nataal bu télé bi ñëwee ba filmer ko ba ba nga xam ne si ku ni jàkk li di nga xam ne lii lu teguwul ci yoon bu ko defee nag léegi këyit yooyu. yoon kenn dootul mën a ñëw ni defuma fi lii bu boobaa yéen ñëw ngeen fekk accident ndax accident bala ñoo def constat sax fi mu toll nii accident bu amee ah dan naan ñun ñëw xool filmer bu nu filmer danaan ni lii kat jaaduwul nii ak nii boo lëgee loola ngay mën a sukkandiku tey bu nu ñëwee filmer lii mu jaar fa mu war a jaar kilifa yi ci dëkk bi Medina faal bii ñun li nu naqari ñun ay kaw kaw la ñu def ñun ñëpp ndax ba da ngay gis nit jóge fële jaay la doole goo xamee ne si ne maa la ëpp doole maa la xaalis te loolu dafay war a jeex léegi nag ñun dañuy wut ndimbal képp koo xam ne yaa ngi dëkk Medina faal lii di sa naqar na doon lii na doon sa naqar nga jàppale ci xam ne kii doomu jirim la te kenn ku ci nekk ci ñun suba suñu borom mën na laa jël nga ba fi sa njaboot kaa bu mel ni arrivé la directement fii nga xamante ne mooy Medina Medina Fall extension plus euh, fi nga xamante ni moo gën a nekk ci kër mbay saar bi nga xamante ni moom la ñu teg jaay ko doole tey jii mbokkam yee xarit yeeg am di jàmm yi ñëpp jug nañu pour taxaw ci ginnaawam parce que jaay doole dafa amatul fenn ci biir réew mi moom la ñu bëgg nag dégg micro mu wax ñu exactement ce qui se passe réellement. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku ne ci turam at santam quoi dama fee ñëw keroog vendredi dernier quoi bi ma woowee téléphone sama benn maire moo bi ma woowee ni ma yow de sa terrain bi ñu ngi koy bay gis naa fi benn waay bu fi ñëw di ko bay te pen bi nga fi defoon dajji nañ ko ba xam da jaay sa terrain ma ne ko non non jaayuma terrain parce que terrain bi maa ngi ko am depuis te gëjuma fa sax mun ma ñu ngi koy bay de boo teelu te ñëw nag gis naa benn waay bu birik à côté ma ne ko amul problème jour boobu bi ma jullee ajuma noonu laa jaare ajuma sax moo jaar ñëw fii ma ñëwee fii fekk effectivement li mu wax lépp moo nekk dañoo bay terrain bi pen yi fi nekkoon dindi ko même balko bi fi nekkoon sax duñ ko daaj moom ngeen taxaw noonu xam nga ma ñëw dem ba ci birig yi ñi doon birig man leen yéen koo leen birigal ñun ma ki may birigal de terrain bee moom quoi muy numéro bi fii ñu taxaw ma ne ko terrain bi kon de waa ji boo yeboo ngeen woo ko ni ko kon ñàkk na parce que terrain bi maa ngi ko jëndi depuis depuis 2015 ñun ma waaj de indi na fi kayit yu leer nañ fi la taxaw euh, lii fi man leen ah amul problème jox leen ma numéro waa ji ñoom d'accord ñu pour jox ma numéro waa ji ci laa insister joxuñu ma ko ma dugg ci kër gi kër gi en face dem ci paa bi ñun ma paa yi dafa génn ci laa ñëw woo sama yaay wax ko affaire bi kaa bi ni mu demee wàññeekuwaat ñëwaat ci kër gi ci dañ ma waxee ni ma waa ñëw na ba noonu mi ngi dem wàcc na fi numéro ci laa ko woowe bi ma woowee waa ni ko yow foo nekk mu maa ngi nii di waaj jéggi tali ma ne ko maa ngi ci biir kër gi dégg naa yow yow yaa yow yaa ñëw ni yow yaa moom kër gi ci la waaji wàññeeku ci ñu fekkee fii ñu taxaw mu ñëw ma ne ko yow samay pen sax da nga koo dindi mun ma a ah, man de kër gi dañ ma ko jaay parce que premièrement jaay la wax ni dañ ma koo jaay un certain six sapeur moo ko jaay goroom la ma ko dañ laa jaay kër gi ma ne ko man kër gi man maa ko jënd depuis 2015 kon yow ki la jaay kër gi 2020 kon dalaa liñ jaar quoi jaayu la kër dalaa nax mu woo Cissé sapeur quoi ci sama kalam bi mu ko woowee waa ji décroché ni ko lan la mu ni ko yow kër gi ma jox am na ñëw taxaw ni ñoom ñoo moom kër gi depuis sama kalam sama kalam la ko wooyee ba ci yàgg waa yow bu toppatoo loolu demal nga def sa liggéey ñooñ dañuy wax rek xam nga li ma la euh, bi sax mi ngi taxaw ni ko ah, kon waa ji lii la répondre ñu di ko waaw daa ne ko ma ne ko léegi yow maa yegg sa numéro dinaa la woo te fu yoon fu ñu dem fu ñu dem ci yoon yow di nga ñàkk parce que kër gi sama kër la te maa ngi samay kayit yu yu yàgg ko kayit bu kayit bu original bi laa yor mi man waa ji indi attestation wane am naa bàyyi naa nga sang mais da koo wane comme forme dafa génne nii rek dugalaat quoi waruñu ko réellement après ci la dem ci dimanche gi ñu am fi rendez-vous ñun ak ñoom moo si sapeur ñu ñëw bu ñu c'est Sapeur wa mo wax quoi ni man dañ ma réinfecter kër gi xam nga li ma wax ma ne ko saa yow yaa ngi wax ñaari wax de ki day dañ ko ko jaay nga ni ko dañ ko réinfecter mu ni man dañ ma réinfecter kër gi ko sama société ñu réinfecter ma numéro bi ma jël sama tur dindi ko def ci turu waji ji nak bi muy dem dama ni ko lo tek sama loxo rek mu tek sama loxo ni ma kon jëndal li njëgu essence ngi ni quoi daan makoy jox xam nga loola affaire bi démé non ma kër gi de moo bañuma ci dara ah, maa ngi yow ba jusqu'à ñu dem ba euh, cour suprême bañuma ci dara parce que alal maa ko moom maa ko jël. est-ce que est non xam nga tey jii man bala maa dugg ci dara fa ma am ci ay conseil quoi parce que bu nu ma ñëw rek damay nii damay dawal sama bopp parce que dama am ay kilifa bi ma ñëwee dama ñëw dem ci sama ndiyaay Cheikh Ndoye ñu expliqué ko cas bi ni mu demee. at ñu bari dem naa ci ñoom déglu naa seen i xalaat mais moom li ma njëkk a xalaatal mooy que nañ ko médiatiser parce que cas bu mel nii mën naa am ci ñoo xam ne dañoo néew doole te jotuñu média yi ñoom tamit ñu mën cee mën a génn. ñu waxaale ñu waxaale leen seen soxla quoi. ma ne ko kon est-ce aussi tamit dem ngeen ci délégué de dem nañ fa mais fekkuñu ko. dañoo fekkoon mu génn. dañoo fekk mu génn xam dem nañ ci ñi xam ni am nañ xalaat bu baax bu rafet. pour ñu wax leen ko même sama copain yi sax ku ma am loo ma wax loo ma ciy wax dama lay déglu nga wax ba pare xam nga dama ñu def loolu lépp ba ñëw ba ñëw ba ñëw ba ñëw toog ñu ne nañ ko médiatiser ba pare buñ def buñ médiatiser ba pare lundi ñu léegi ñu xool ñun nan nañuy def lan la ñu loi lan la ñu loi may ñu def non naa dem toj ay brigam parce que ma fekkee li mais damaa xam ni tey jii bula nit dóoree nga fayu yéen ñaar ñëpp nañuy boole boole leen même peine bi ko parce que loolu du ma ko def. parce que lu bon bon sax su ma soriwul jàng na quand ma def loolu man ni comme que moom def na lii ci xelam bu gàtt man dinaa def de tout que ma médiatiser affaire bi ñi nga xam ni ay autorité nañ ñu man koo gis ma euh, luñ ci mën def ñu def ko bu ma mënee jàppale ci lii ma bañ a perte sama terrain ñu jàppale ma ci bu dee dëgg rek moo tax ñu euh, ñuy def parce que dañoo woote nii te euh, dëgg moo mooy njëkk mooy mujj n'est-ce pas kon boo loolu moo am dañ ñu jàppale suñu terrain parce que terrain bi du man kese maak sama sœur ñoo ko bokk suñu héritage la ñu jënd ko depuis des années amoon ci yaakaar nag pour def ci lu bari parce que man damay loué damay loué kër loué place bi may liggéey te xam nga loolu charge la léegi nga am yow benn terrain boo xam ni moom nga amoon yaakaar jënd ko depuis 2015 benn nit jugee fële dañ ko ko réinfecté loolu loolu sax bu ko nit di déglu ah ñëw essence quoi xam nga ah waaw yaa ma gën xam xam nga loolu mënoon naa ñàkk sax xam nga wax jooju sax xam nga erreur la quoi parce que moom bi mu ko waxee sax xam na li mu wax nii parce que waa ji ñëwaatoon di ko waxal moom moo ko doon toog di ko waxal pour xam ni erreur yi nga xam ne defoon na ko ci suñ première euh, jàkkaarloo mu mën a rectifier loolu ko yow 2015 nga jëndoon moom mu ni 2020 lañ ko ko jox. Mhm. est-ce que mën ngeen génne aussi kayit yi nga xamante ni moom mooy euh, original yi. d'accord mën naa leen a wër kayit bi original bi indaal naa ko. kait original kër gaa original 2005 la léegi léegi sa mot de la fin lan la woon d'après ci li nga jot a expliqué yëpp leer na nañu wane nga caaxaan taxu leen a jóg ay kilifa lañu. àdduna ñu aussi kàddu ñoom tam li ñuy wax dégg nañ ko. mais fu mu doon nii nag lan ngay xaar ci li nga xamante ne mooy autorité yi ak euh, dëkkandoo yeeg ak diwaan waa Madina Fall lan nga xaar ci ñoom. waaw damay da dama euh, ginnaaw loolu damay sant ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw teew parce que yombul quoi nga déplacé nit ci heure bii quoi parce que tey dimanche la jour de repos ma déplacé leen ñu ñëw maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp di leen wax ni waa Medina Fall dama leen di dama leen di dama leen di dama leen di soññaat quoi ci ku ne ko am terrain yor ko fii ci Médina Fall extension na nga ñëw nga saytu ko parce que dafa am ñoo xam ni dëkkuñu fi quoi te kii may wax nii dëkku fi feneen la dëkk parce que Gorom Jaxaaw dëkk moom mi ngi dëkk ba xaw defe naa ay mbuur mbuur trois xam nga te ñoom lu bari dañ fiy ñëw di teg seen loxo may wax ne képp koo xam ne am nga fi terrain na nga ñëw nga saytu ko mais nag ñun duñ bàyyi parewuñu pour bàyyi tey parewuñu pour man sama terrain bii laa bëgg moom laa bëgg ñu delloo autorité nag li ma leen wax mooy lan mooy que dama leen di lancer benn appel muy que nañu teg lépp ci yoon. man maa ngi lancé message euh, chef de quartier bi sëñ Amdi di ko lancé message di ko wax ni ñun jabootam nañ te lii dañ ko filmer nii pour wan ko ko pour mu gis ko moom xam ni lii moo am fii léegi nag bu loolu amee man maa ngi maa ngi euh, tamit gërëm doomam bi nga xam ne di ko lancer message moom mi nga xam ne moo yilif euh, Médina Fall extension sañ Modou di euh, sëñ Modou di ko di ko yëgal moom tamit moom mu xam li xew fii pour mu jël ci ay responsabilités am tamit waaw di wax ko gouverneur tamit di ko wax préfet waaw monsieur le maire Birame Souleye waaw ak kër Diop di leen ko wax ñoom ñëpp ak jaxateeg ñëpp di leen ko wax pour ñoom tamit ñu jël seen responsabilité ñëw ci lii taxaw ci parce que Médina Fall extension bari na ay problème lii nañuy dund chaque jour te am na ñoo xam ne lii ñu def nii ñoom mënuñu ko moo tax ñu ne woon nañ ñëw indi fi ñii ñu eh, indi tele bi gars yi ñëpp gis ko eh, min na faal gépp tamit teg seen bët maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu fi teew waaw waa ji ñëw nañ fekk ko mu dindi suñu pen dindi lépp affaire yi ma nga nee mu teg man fekk naa ko muy birig mënoon naa dem toj ay biriga mais ñun jàmm nañu woote lépp dañ ko teg ci jàmm ak salaam moom bu bëggee jaamu tamit nañu bàyyi ak suñu terrain mu dem xooli feneen parce que ñun jaamu nañu woote moo tax ñu woo fi sax ñi waaw maa ngi gërëm ñëpp nag di sant ñëpp. kër gi moom kere ba may dem dama am sax ay seede ñu jël xaalis bi ma teg ko sama loxo borom kër ñu ñëw fii fay si xaalis bi kër gi nekk lu ko lew doom mu moom ko muy alalam kere bi ma ñëwee fii nag ñu woo ma ni ma kër ga bay nañ ko. di ma dikkee fii ñëw fekk birig yee ñu teg ko fee keroog dañ maa téye seize lañ ma wutali ci kër gi ma toog ñu di ma sotti ndox ndax dama xool rek ni ñu doxalee affaire yi metti ma lool nekk lu ma naqari ah ma dem ba nara daan waaye ma àndaat ak sama sago xam ni yàlla rek moo fi nekk waaye li ma wér te wóor lii naqari na nañu ba ca kanamu yàlla ndax wér nañu wóor nañu mool yi ñoo ko moom kër gi ñoo ko moom fondation bi ñun ñoo ko fi defoon jama yam ak yama ko koy jëndal nag ñoom dafa fekkoon ñu gën a nekk xale ndax du jamono yi quinze lañ jëndoon kër gi waaye nag ah maa ngi ñaan yàlla ndegam yàlla moom mooy séddale te mooy joxe ah yàlla na ko far ndax moom moo ko moom ma di ci woo nag sëñ Modou Lo sëñ Amdi Lo ñoom ñëpp maa ngi leen di woo ndax ñun ak njabootam lañu te ñoo dëkk Mbina Fall ñoonu jaboote lépp luñ ci man ñu jàppale nu te xam ni doole moo bariwul képp ku taxaw fii bëgg a ñëw di nu jaay doole ci sunu alal ah ñun ñu làqatu ci seen ginnaaw di ñaan yàlla rek mu jàpp leen. Euh, maa ngi nuyu ñëpp man la Mamadou Diop euh, dëkk fii Médina Fall extension di conseiller municipal aussi ci Thiès Nord euh, lii ma fi indi nii nag problème la boo xam ni man xeex naa ci bu yàgg te sama kër kenn nanguwu ko kër Cheikh Noy Mbaye kenn nanguwu ko mais nit ki boo gisee injustice da nga ciy jóg parce que tôt ou tard mën na daal sa kaw. donc injustice fu mu nekk rek ñëpp ay noonam la ñu war a doon désaffectation bi avril 2019 la am le maire de la ville moo ko doon def bon concerné na ay kër yu nekk euh, Médina Fall Médina Fall extension nekk Zagba nekk euh, Grand Standing léegi bi ma dee kaas loolu am na benn émission bu ma ci def rajo bi ma paree ci émission bi quelques jours après le juge dem woo ma ni ma damaa déggoon ngeen di wax ci extension moom sax dafa yaakaaroon ni dama bokk ci ñu ñu jël si këram ma ne ko waaw loolu man ci au nom de mon association bu nekk fii Medina Fall extension association pour le développement intégral de Medina Fall extension ñu naan ko ADIMEX dañoo jógoon di xeex loolu parce que lu ko jiitu dañ doon xeex espace vert yi ñu occupé xam nga lotissement bi daa am espace yoo xam ni kenn waru faa dëkk biñ ko récupérer di ko dagg di ko def ay kër ci xeex boobu lañ nekkoon pareeguñu désaffectation jóg ñu boole ko léegi nag donc li taxoon ñu attaqué ko mooy que ni désaffectation am na xam nga war naa am boo jëndee sa kër lu yàgg te defoo fa dara yoon mën na koo jël jox ko keneen jox laa wax de waxuma jaay mais tamit nam ko koy joxe day am yoon wu mu jaar dañuy ñëw ci borom kër gi ni jox ko notification ni ko sa kër gi may nañ la un an boo ci deful dara ñu jël ko xam nga buñ ko mayoon un an tey jii bu ñu fekk fi dara kon du ñu nungu kër mais ta euh, euh, gaawantu giñ ci def mooy que ni dañ ko bëggoon a jël léegi nag biñ toppee loolu ci yoon ba yóbbu ko ñi ñu dajale woon ndeysaan malheureusement vingt personnes dañu daje woon parce que doon nañ ko yuuxu di ko publier pour que képp ku ci bokk rek ñëw joindre ñu ci xeex boobu léegi vingt personnes la ñu amoon biñ demee cour suprême cour suprême vingt personnes yooyu am nañ droit ci seen kër tey jii seeni kër boo fa fekkoon R plus cinq bu la neexee nungu sa kër ci yow rek la dépendre décision bi c'était le 14 mars 2024 plainte bi ñu ngi ko déposé 2021 cour suprême tey jii nag plainte bi tey kii mën na koo parce que xam nga annulation bi daa waroon a concerner kër yëpp mais peut-être justice danaan ñi nga xam ne ñëwuñu am nañ solution ci seen problème moo tax ñëwuñu moo tax mu yemale ko ci ñi mu concerné te avocat bi sax moom moo insisté woon ci ñi mu concerné parce que ñoom xaalis bon amna lu ñuy liggéeyee daal moo tax xëy na ñu ni ñi ci bokk ñëpp nañ indi seen kër këy ñuy ñu ñu koy informer di dajale nit ñi di leen woo mais vingt personnes ñoo dajale woon ñoo daje woon chaque dimanche ñu daje kër juste dem fële à Somme di ci waxtaan ba décision bi génn léegi décision bi nag ñëpp la mën a jariñ ñi nga xam ne nangu nañ seen kër parce que décision bi boo ko jëlee jël avocat du yàgg parce que lii jurisprudence la jurisprudence mooy atte boo xam ne atte nañ ko ba pare bu ñu àttee pour Cheikh Ndoye jox ko dëgg ñu bokk problème maak Cheikh Ndoye bu ma demee tamit damay amaat dëgg loolu mooy jurisprudence donc te lii nii xam naa dimanche bi moo tax mais moo tax indi lu ma leen ci ay copie voilà donc loolu la mooy fii fii fii borom kër gi jaar mooy yoon wi tey ji euh, man lu mat quatre personnes woo nañ ma ci affaire bi ma ni leen da ngeen di dajale da di dajoo dajalew wo un avocat mu delo leen sen keur ci njëkk ak parce que euh, du fi jeex parce que désaffectation lañ defone dañoo ressembler keur yi nga xamni ni kenn dëkku fa yépp daal dem au niveau de la mairie ville mu def désaffectation bi date baa ni c'était le 21 avril suma ma 22 avril 2019 préfet donc bo xolé tamit amna ño xamni tamit umpu leen autorité yi ñu jégué ni trop muy délégué de quartier yi umpu leen parce que désaffectation maire moo fay nekk euh, receveur u domaine ak délégué de quartier yi nga xam ni ñoom la problème bi xam nga ZAC ba chef de quartier bi comme am na ay cas dafay nekk mën na fa échange dañ fay nekk ñooñu lii umpu leen xam nañ ko bu baax a baax léegi nag dafa am ñoo xam ne dañ ci doon potoxlu parce que dañuy ñëw sax kër gi kenn nekku fi ñu jël ñetti mool def fi pour occuper ko bu affectation jàllee ñu ñëw daal di koy wut kuñ ko jaay daal ci récupérer xaalis donc système boobu am na fi voilà loolu daal mooy problème mu désaffectation bi voilà di gërëm ñëpp di sant ñëpp. maa ngi présenté wu man maay Amdy Seye di papa ci ki jëndoon ki ma jëndaloon terrain bi parce que man maa ko jëndaloon 2015 ma jënd ko ba pare ñoom ñu jotee def seen peine xëy na. Euh, xaw a ñàkk doole tuuti moo tax fekk ñu ñu tabax liñ ci waroon tabax mais commencé woon nañu di dajale pour bëgg tabax te kër gi rek moom la ñu am te ay cirim lañu donc dafa am ñoo xam ne nag ci service classe peut-être wala feneen wala feneen foofu foofu la ñuy liggéey mais tàmm nañu kër gu ñu gis boroom xaw a néew doole tuuti ñu daal di jëm jël kër ga des désaffecté ko keneen wutal ko kayit yi mu war a am yëpp bu ko defee kooku bu ñëwee duutu am doole parce que góor attee ci kayit yi mu gis foofu lay atte mais kayit yi aussi niñ koy defee ak na muy demee ak ki nga xam ne moo jëkkoon moom te moom néew doole moo tax mënut a defar kooku bala ñu fay def dara war nañ koo contacter laaj ko ba xam comme ni ko waxee léegi kon man samay wax rek du ci gudd kër gi moom jënd nañ ko topp di ko toppatoo seen loxo musu cee jóg ñu xëy benn bis rek gis benn waaye bu jógee fa la ñëw di def koy tabax loolu rek laa ci bëggoon leeral jërëjëf.